اسمني الله عند الجول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جريدي بكي طالبي أكفوني من نك نيرين نيو di leen ndokkeel ci bis bu mag bu tedd bii nga xam ne ci la ñu jëm xam ngeen ne ni ko kilifa gu tedd gi daan defee mu Cheikh Mouhamadul Mountakha xafisahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara ni mu koy defee ci at mu nekk buñ jubee bis bu mag bii am na kàddu yu muy jëmale ci mboolem taalibe yi ak mboolem jullit yi ak réew mi ak àdduna si yëpp noonu mu ko daan defee it mooy ni ko daan defee yàlla na ko yàgg a def lool ñu yàgg koo fekke lool ay ati ati at yàlla eggale yéenam bi yépp ba lenn lu ci nekk mu amee ko nam ko bëggee barke Cheikh Khadim ak ci barab barke bis bu tedd bi nga xam ne ci la ñu jëm. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. mbokk yépp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare. di leen seereel sunu cant. leen seereel sunu cant. ndax gannaaw bisu bisub cant la. borom dafa waxoon ne dafa bëgg ko ko santale. kon nag. day cant yu bari. day cant yu bari. day day daje ci moom. bala nu ko sant bala nu ko santale. koy sant moom ba noppi. santal diggante ak boroomam. sant ko diggante ak yonent bi. sant ko diggante ak yonent sant ko diggante boppam. sant ko diggante ak boppam. sant ko suñu diggante ak moom. doora nag. doora nag. jublu ci ndigal li. nag jublu ci ndigal li. muy santale ko muy santale ko. santale ko borom. kon nag alhamdulilah niñ ko daan defee rek. kenn ku ne la nga mën lu baax. kenn ku ne la nga mën ci lu baax. pëstéef. nga am ci pëstéef. jëfe jëfe jëfandikoo ko. ngir santale ko. ngir santale ko. loolu rek mooy li ci am solo. daa jiital alxuraan ji. naa jiital alxuraan ji. niñ ko daa jiitalee. niñ daan jiitalee alxuraan ji. kenn

ku ne kenn ku ne lu mu mën ci lu baax. lu mu xam ci lu baax. na ko def ngir santale ko boromam. loolu rek mooy li ci am solo. loolu rek mooy li ci am solo. te nag gën a góorgóorlu nag bu baax nag. ndax sëñ sëñ bi moom du du ku ñuy roy ndax mu ne su koo roy waaye nag mën nañoo def suñu kem kàttan boolewul bi boolewul dara ak boromam. lu yonent bi mënu ko joxoñ. mi ko joxoñ. moom mi mu ko joxoñ yonent bi mu ko joxoñ. doxinam wépp. doxinam wépp. lépp jëm ci borom. doxinam lépp jëm ci boro jëm ci yonent bi. kon loolu du kuñ mën a roy. kenn du ko jëm sax. waaye nag nañ def suñu kem kattan. nekkal ko ci ni mu ko bëggee woon rek. fexe mel niñ bëggoon mu mel ni mel ni. bu nu mën suñu kem kattan. bu nu kem kattan. lu nu mën suñu kem nu mën lu nu mën suñu kem kattan. gën koo jublu. nu gën koo jublu. gën a jublu suñu borom. lu nu suñu kem kattan. lu nu mën suñu kem kattan. nu gën a dummóoyu adduna. gën a dummóoyu adduna. ndax noonu la ko bëggee. ndax noonu la ko bëggee. ba leen koo sant. nekk da nekkal ci li bëgg. koy nekkal ci li bëgg. lam bëgg nag. mu mooy jublu yàlla rek mooy jublu du mooy it àdduna bu ko defee diggante bi diggante bi. lu nu man suñu kem kattan. lu nu man suñu kem ci def ndigal li. bàyyi tere yi. nu di ko def suñu kem kattan. kon lolu moy doxine wi nan ci góorgóorlu bu baax lolu kon bay ba mu jox seigne bass kaddu gi ndax ndax buñ duggé foofu ñu xam fu ñu yemee. du ñu xamante fu ñu yemee. kon li ci des mën nañ ko jox sëriñ Bas rek mu eggale ko. kon sëriñ Bas eggaleel kaddu yi. ni ñu ko daan waxee ak ni ñu ko daan defee rek. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin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 waaye nim ko waxee léegi rek ñu jéem rek suñ kem kattan ndax kàddu yam daa wax ay kilifaam rek benn baatam moo gën suñ junni baat foofa la ko suñ borom teg kon ñi ñëpp di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax dundam gépp fii mu wax ci diggam ak sëriñ bi rek foofu la ne dundam gépp ak jaamu yàlla dundam gépp liggéey Sëriñ Tuubaa képp la ko de sox doyoo ko leneen kon yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak kàddu yi nag li ci jiitu mooy nuyu bokk jullit yëpp ñim bokkal lislaam ji yëpp di nuyu itam bokki réew mi yëpp di nuyu bokki taalibe murid yi nga xam ne nag ñoom la sañu digal sañ leen tere ci bis bu màgg bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne li doon sabab si mooy sëriñ bi dafa def li i'tikaaf fii ci جاكي سيرين مكي مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكو اندكو اهل بدر ييب سيرين بي نك بام لين غيسه اموتو جامو اموتو دار لوماي خلات لوماي خيميام سن تيرينام مو رسول الله صلى الله عليه وسلم نك سما ييتي جيب موي بوكو رسول الله خمل كو نكو ñii de bokk ci ñoom faat na ndax lu ko daa maye daa jeex mooy tuur deret tuur deret amatut kon li des mooy jihaadu nafsi jihaadu nafsi boobu nag mu wax ko ne ko dañ la teg natt yu métti yoo xam ne dana diis lool yoo xam ne néewaa na xam ne buñ ko ko tegee mënoon naa nekk wàllu àgg ci yàlla waaye da ak nga mën naa dem bari ki ko wat sëriñ bi ne ko ruugi di laa bindut ba xam lu mu attan lu mu attanut waaye bu ko attanee rek jom ji attan na ko mu ne ko nag natt bi kenn du la ci dimbale kenn du la ci jàppale mooy astaxlisoo li nafsi waaye sëriñ bi daal di sartante mu sarte moo ko ne kon nag ñaar dana ci am dëkk bii nga nekk muy Touba da ko koy daal di génn ndax yaay ñaanoon sa borom ne ko fi wenn ay mën a tabbi kon aw ay mun laa jugee di fenn di la di la fekk ba jaris it am na sa waajur yu ñuy wax Serigne Bousso mi ngi dund te nitu yàlla la te mi ngi jëm jël ay ñaan di ci yow li fi mi ngi dund natt bi duma ma agsi ci moo tax Serigne bi daal di génn dëkk bi dem Mbàkke Bari ngir xaar fa natt bi natt bi nag Serigne bi def ko rasulullahi xamal ko ne ko natt bi ne. mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp lañ lay booleen muy nattu yu saahir ak nattu yu baatin saa su bis bi accès nattu yi la tegoon day dañ koy fulaat ba mu yokk sëriñ bi di ko dékku di ko dékku di ko dékku ba samaani xëy jinni yi mat ba nattu bay jeex nag ci at mu mujj ma sëriñ wax ne rasulullah da koo xamal ne ko mboolem shayaatinu insi wal jinni yëpp maase nañ dajaloo ngir jéem a seet nu jëme ci sa ji te yaakaari mbooloo du ma ko tas kon nag na nga seet nooy def sëriñ bii nag mu am jomi jéem a dékku natt bi nee na ba bañ songee jëmm ji ba jëm si ci moom nag alxuraan soppaliku jëmm dox di gëm ñoom suñ boo xamal ko ne ko foofu la na nattu nattu bi di jeexe waaye li ma la ci jëkk faye mooy waa banoo israel yi ngay jamonoon teel yëpp ku yàlla sàkk ku ne bindal na këru àjjana bindal na këru sawara mboole waa banu Israayil yi ñi nga jamonoonteel yëpp seen kër yi ñu leen waajaloon yëpp may naa la ko Sëriñ Tuubaa ne ko defaat naa ko addiya saxaaba yi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne ko man de dara du jóge ci man di dellusiwaat sëriñ bi nag ne ko kon dencal ma ko ba ëllëg ndax sama waa kër yi bopp yi jombale naa leen àjjana juñ xaroon kenn di leen ko jox ñëpp laa fàggul àjjana kon nag denceen ma ko ba ëllëg bu demee ba àgg bis pénc képp ku ma ci war dimbale ma dimbale la ci kon sëriñ bi kenn mënu koo fay lii jaada rabbi bil manasili lada taxarrubi mutayiban lil xalada inni jahaltuha hadaya lishahab radiya anhum man xamani han shahab kon mooy kër yooyu nga xam ne joxoon ko kon nag bis boobu mooy bis bi nga xam ne ci sëñ bi ñu sant la ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla tàmbale ci ganaar ba ci gileem lu ci mën na ko ci defar den nag mi ngi dajeeg ajjuma ñaar fukki fan ñett ci weeru ut wii eh, sëriñ bi neen koy fàttali ñëpp di ko yëgal bokk julli yëpp di ko yëgal bokk taalibe yi nga xam ne nag ñoom la sañi digal sañ leen tere di ñaan nag bis ñu àgg jam na xam ne ne Serigne Touba bisam bi ñëpp a ko bokk mboolem ko di julli rek ndax ni mu ko waxee rek wahabta lii kaw na jamihil awliya ahibati fii ka analta mayliya def nga ci mboolem koo xam ne wàllu la rek ak cofale sama moom loolu nag moo sar ba adduna sëpp maase ci bëgg ko kon nag sëriñ bi naan mi mi ngi ci soññ taali bi yëpp di leen soññ it ñi mu sa ñi mu sëriñ Tuubaa di leen sant ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoon ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal di sant mbokk taalibe yi ci liggéey sëriñ Tuubaa bii nga xam ne ànd nañ ko moom te li ci mujj ñu nekk ci ba nag mooy daare Cheikhul Khadim ji nga xam ne tàmbali woon na ko ba sori na ba la ci des bëriwut waaye ba nag ni ñu ngi ci liggéey ba mu ngi leen di sant ci li weesu lépp. di soñat bokk tal bi yëpp ñu xamné liggéey bi du ag ndax mourid mom du wàcc du noppalu ndigal lu jeex rek leen ak siwaat kon neena mi ngi soñ bokk tal bi yëpp ak ñu bokk sëriñ bi ak ñu bokkal yoon yi yëpp ni mu sante bokk jil yëpp nak ndax mom xamné ne fi mu tok dafa doon sëriñ Touba sëriñ Touba dafa doon rasulullahi sallallahu alayhi wasallam kon ñëpp fi nekkal la sëriñ Touba doon naan naan يا مالك الملك يا من جل عن خود ارحم جميع الورى يا هادي الرضا fofu la toogee mooy nekkal fi adduna sëpp kon mi ngi ko yëgal adduna sëpp di ko yëgal bokk jul yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري